internet yu Saloum Actu tey mbégte la ñu amati ak contentement jógee diwaan bu Kaolack ñëw ba fii ci diwaan bu Ndar loolee nag waral ñu daal di jàll ca Ross Béthio jadd jublu nak ci sini jinja fi nga xamni nak mom moy Agro nek nak lo xamni walu mbay lay yëngu ak lu ni mel and ko ak directeur bu horticulture du docteur Makumba Diouf ngir ñu ñew xol li nga xamni mom moy tol bi walu mbay mi ak it toblu pompiter yi fi nek fan la tollu naka la ñuy production bi ak lu ni mel dañuy and yegg ci bir xol li nga xamni mom mo fi amé ñu ngi jamono ji fii ci visite bi jamono ji sax ñu ngi seetlu euh, docteur Macoumba Diouf sax moom mooy jàll instant yi ni ñu ngi ci visite bi fii ci diwaan bi ak it ci wàllum euh, li nga xam ne moom mooy production bi ñëpp gisagum nañ ko euh, nii nii ñu mën a jàpp ni fi la ñuy defaree pomme de terre yi production bi usine bi mu bëri nit ay ndaw yoo xam ni ñu ngi fiy daan seen doole ñu xool rek fi nga xam ni foofu la liggéey bi toll ñu gannaaw bu ñu jugee fii des nañu dem ci tool yi foofu it des nañ leen ko dégtal ñu bàyyi ñu leen ak image yi te dellu si tey ñu ngi ci visite bi gannaaw bu ñu dayowee lu tollu ci mbala sax lu ëpp cent mètres ak lu topp daal dinañu yegg si fi nga xam ne moom mooy tool yi fii nga xam ne nag ci la ñuy jëlee lii di pombiteer yi yóbbu ko fële ca euh, bërëb bi nga xam ne foofu la ñu jógee léegi jëm ci wàllum euh, usine bi defar bi ak it euh, lu ni mel loolee nag moom moo ñu andi ba fii jamono ji ci tool yi la ñu nekk andi ci ak docteur mu ngi nekk di xool li nga xam ne moom mooy liggéey bi ñu bàyyi leen ngeen xoolandoo comme ni ñu ko gisee li nga xam ne moom mooy liggéey bi fii ci euh, tool yi mu nekk nag ay hectares yi hectares euh, ci biir bërëb bi nga xam ne fii la ñu euh, nekk gannaaw tool jamono ji ñu ngi ci zone de tirage bi et de calibrage nek nak zone bo xamni fi li ñuy défé li gëna am solo tamit ci liggéey bi ngir djublu ko feulé ci chambre froide yi yi la chambre froide nag mën nañoo jàpp ni ñom euh, am nañ ci lu tollu ci juróom benn ak ba nek ci jam ñaajo muy juróom-ñaar foofee la ñu toll ba tay ci visite bi ñu bàyyi rek dugg ci biir xol li nga xamni mom mo ci nek ak it doxalin bi parce que sinon même le conditionnement va être difficile C'est pour ça. kon tey dañu ñëw ci ay toolu pomme de terre ànd fi ak ñi nga xam ne yëpp filière bi def leen soxal moo xam béykat yi moo xam service technique yi topp mbéy mi moo xam consommateurs yi moo xam euh, ñi nga xam ne euh, xëy na njënd ak njaay rek moo leen boole ak pomme de terre ñu ñëwoon fi tey nag pour ñetti mbir pour nemmeeku si tolluwaay bi ci liggéey bi fii ci mbaan ndax nag damay fàttali ne Sénégal dafa tànn ci wàllu mbéy li ñuy wax option mix mooy dooleel baykat yu ndaw yi waaye aussi yombalal yaxanal mbir yi ba baykat yu mag yi privé yi ñoom it mën a liggéey gis seen bopp maanaam ñu mën a mottali wante kon gisuñu béykat bu ndaw ak béykat bu mag comme ñuy jongante waaye ñuy mottali wante ñu am ak ñoom ñëpp nag ñëwoon fii pour ñetti mbir benn bi mooy xool tolluwaay bi ren ci production bi xam ngeen ne campagne bi ñu ngi ciy wut téeméeri junniy tonnes ak ñeent fukki junniy tonnes ak juróomi junniy tonnes cent quarante cinq mille tonnes moom lañuy xaar ci campagne bi moom la nguur gi naaloon tax mu importé ñaar fukki junniy tonnes ak juróom ñent mu jar fukki milliards ak ñett daanaka fukki milliards ak ñent yu manqué téméri million mu am jiw bu ñu défé fi bien que wu ak jiw bo xamni ci ëpp bitim rew la joggé ñu indi ko pour mëna bay am pomme ñu gis fi nak ci fannu production pour marché bi pour at mi ñuy dugg ñu gis fi ñu am ci xel mu dal ndax ci téeméeri junniy tonnes ak ñeent fukki junniy ton ak juróomi junniy tonnes yi ñuy xaar cent quarante cinq mille tonnes fii rek ñu ngi fii xaar quatre vingt cinq mille tonnes bu doon téeméer la ñu wut juróom fukki ak juróom-ñett daanaka juróom benn fukki yi dinañ ko am fii loolu nag lu dal xel la pour consommateurs yi nga xam ne ñun ñii ci lañ bokk ndax ñu ñëpp ay consommateurs la beneen bi it mooy ci wàllu. fu ñu ko def ndax loolu bu amul dencukaay amuloon jafe-jafe dina am waaye yàlla def na sutura it fii am na juróom benn chambre froide maanaam bërëb dencukaay ñu ngi ciy tabax sax juróom-ñaareel fii ak ba nekk ca gam ñaaño muy juróom-ñetti chambre froide yoo nga xam ne bi ci gën a néew mu ngi def fukki junniy tonne bi ci gën a mag mu ngi def fukki junniy tonne ak juróom kon xam nga kon su ma nee xel dal na loolu lu wér la ndax dinañ fi ñorle lu doy ci pomme de terre te amees na fuñ ko denc waaye des na tuuti ci solution ndenc mi ñaay ñu ngi fay xaar lu mu néew néew ñeent fukki junniy ton ba benn fukki junni ton waaye nguur gi am na programme bu nga xam ne ñaar fukki junni ton chambre froide mu nga ca ministre bi mu ngi ciy taxaw pour que privé yi mën ci jot pour jëmmal loola xam nga kon boo ko li nekk fii daanaka sa xel mën naa dal ni jafe-jafe yi ndenc bu dee dina am ren dina néew kon loolu moy li feeñ ci dik bi ñu dikk fii muy lu am solo ci walu production bu ñu xaar ndax ma ngi fàttali ni biñ fi ñew ni dafa tombeek nguur gi tëgg ben stratégie bu ñuy wax stratégie nationale de souveraineté alimentaire diante 2024 ak 2028 mille mu bëgg ñu mu jot suñu bop ci walu dundu ci xéetu bay yi gëna ciw ci réew kon li mu nañu wax souveraineté alimentaire bobu pour pomme de terre mom objectif biñ ñu doon visé bu ne bu campagne bi jéxé Inshallah, ci production dañ ko atteindre wala ñu passé ñu ñëw ci benen fan moy jiw loolu ñu def yëpp bu fi jiw du Nous sommes ma ngi ni gis nañ le 2 mars bi fi mbass mi fans. kenn dematul exportation importation amatul won waaw loolu bu xewon ci octobre ba jiitu octobre 2019, kon de ndax moo tax nguur gi ne ministère de l' agriculture euh, te ministre Samba Ndiobène Ka mu ngi ciy insisté bu baax bi mu ñëwee ak léegi dañoo bëgg jiw yi léegi di jóge fii maanaam ñuy ful jiwu senegal fii ci biir senegal nga xam ne milliards yooyu doon dem bitim réew def fii des ñu séddoo ko diggante ñu koy béy ak ñu koy xewloo ñu nekkoon il faut ñu door ko ñu door ko juróom at ci ginnaaw ba wax dëgg yàlla tolluwaay bi dal na xel am na juróom benn variété yu ñu homologué ñu ngi leen di produire gis nañ tool yi ren nañ am fii ci jiw fukki junniy tonnes ak ñeent junniy tonnes quatorze mille tonnes neuf mille tonnes yëpp Swami Agri moom moo koy utiliser ci ay toolam ndax ren rek béy na deux mille six hectares mu ngi ci am rendement bi cinquante tonnes par hectare béykat yu ndaw yi ñu ngi am vingt ba trente tonnes ci hectare bi gis nga loolu ni mu ni toll kon jiwit xel dal na ci ni ci pomme jiwit dina am lenn lu fi am mu jiw local lañuy ñuy mottalee la ñuy jëlee bitim réew ñu jàpp ne nag loolu dafa war continuer ñetteelu tam bi taxoon ñu ñëw mooy njànga yi ñu fiy def mën a yombal jàppalante diggante béykat bu ndaw ak groupe bi nekk fii ci fànn yu bari bu njëkk bi mooy ci wàllu jiw ñu fexe jiw ñoom nee nañ ubbeeku nañu pour ci jël fii jiw di jox béykat yu ndaw yi ñu koy bay àndale ko sax ak engrais ak xaalis pour jënd gasoil pour seen pompage ñu signé contrat wax prix bi nga xam ne dañ koy jënd avant ñoom ñuy béy loolu xam nga lu am solo la ndax ñun nguur gi ñu ngi encouragé loolu li ñuy wax la contractualisation maanaam njëriñ dëgg-dëgg mooy mbéy mi nga xam ne da ngay jaay balaa ji loolu mooy li wér moo dem mbéy ma di fa dox béykat yi doon yëfa ëpp koppar mooy réew mi nga xam ne da ngaa jaay. balaa nga ji loolu it mën na nekk beneen bi mën na nekk mooy léegi xam nga ne ñu ngi jëmal coopérative yi ci zone des Niayes fukki coopérative ak juróom fi mu nekk am na fa mais ñooñu war nañoo mën a signer aussi ak Swami Agri pour di ful jiw foofu ci ñaay ñii di joxe ndeyu jiw bi ñoom ñu koy ful comme ni ko schéma production bi autorisé bu waa ñoom dañuy nekk ay multiplicateur de semence te jaay jiw moo gën a seer ren rek jiw bi kilo bi huit cent la bu dee bitim réew la jógee six cent cinquante la bu dee ci réew mi la jógee te dafa ne kilo donc pomme de terre mosul mën a yegg foofu donc kon jàpp nañu ne loolu aussi dina doon euh, njëriñ beneen bi it mooy dañoo jàpp ne béykat yu ndaw yi ak Swami Agri mën nañu liggéey ci njënd ak njaay maanaam bu pomme ñaay jeexee. mënu ñu ñëw fi jël tonnage bu bari bu ko di ko jaay ndax lolu statut coopérative may la leen ñu def ko kon jënd ak jaay it ci lu jaar ci ci kurel yu mag yooyu lolu mën na nek kon xam nga ni façon yi baykat yu ndaw yi ak groupe yu mag yu melni ni SOPAV Agri mëna andé liggéey xam nga bari na kon motax ñu ñu ngi leen di soñ ci lolu pare nak pour yombal ko pour gungé jappalanté bobu bokku nek ci ñom gis boppam waye ci pandaw li wax dëgg yalla li ñu gis fii dal na suñu xel li ñuy séntu it ñu tegg nañ ci ñu dal suñu xel ndax li ñu déggee béykat yi waxee jàpp nañ ne ëllëg jokkalante boobu dina war a am te dina war a jur njëriñ ci seen biir. secret bi mooy d' abord gis-gisu président de la République ndax nag yàgg Sénégal yàgg na fi béykat yi yàgg fi te sous secteur horticole kenn joxu ko gëtt président de la République moo ñëw ci PSE mu ne nañ jël ay nattukaay. ay nat jox ko mbéyum nawet waaye ay natt aussi jox ko mbéyum noor ba nga xam ni daañu ci yegg foo nga xam ne béykat day daañu gën a gis seen bopp. te loolu aussi boppam ndax dinañ am souveraineté. gannaaw tournée bi nga xam ne amal nañu ko ak visite bi dégg nañu li nga xam ne moom la directeur bu horticulture di docteur Macoumba juuf daal di yëkkati naka noonu it ñi nga xam ne amal nañu fi waxtaan bi. yegg si ci jamono bi nga xam ne nag moom la ñuy ndar képp li nekkoon tournée bi fii ci diwaan bu Saint-Louis ñu fàttali rek ñu ngi ci euh, Saint-Louis jàll nag ba Ross Béthio yegg si nag ci fi nga xam ne fi la tool yi nekk daw lu bari pour dugg ci bërëb bi lu nu mel di fësal rek tolluwaayu horticulture bi ak it avancé yi nga xam ne ki di docteur Macoumba Diouf eh, andi won nako manam ci ab discoursam wax nako jere ngeen jëf